pense que démb euh, message bi à l'occasion message de vœux de à l'occasion du nouvelle an euh, président de la République bi ma gis c'est vrai comme président bi daan ñëw pratiquement chaque année mais président contexte bi euh, dès déjà dans à l'entame ci discours am euh, def ko préciser dafa nekk euh, discours boo xam ne nii man jàpp naa ni discours bu histoire di téye la Euh, ndax euh, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal indépendant mm. depuis 1960 un président de la République bu exercer deux mandats euh, mandaam di waaj a jeex muy prononcer discours son dernier discours à la nation 31 décembre loolu mu ngi mës a door a am Sénégal ma jàpp ni loolu c'est un moment d'histoire et l'histoire le retiendra loolu nag dafay moment yooyu bu amee ci réew de tout tout tout parti confondu en tous les segments nga xam ne ni nit lii cëram mu def ko mu nekk acte de de sagesse de grandeur de respect de la parole donnée quel que soit lu nit mën a wax ku àndul ak moom euh, moment boobu dafa waroon nekk moment de consensus national j'ai vu hier un nom euh, bu manifester à travers le discours euh, émotion bu bari un homme Euh, d'abord bu remercier sénégalais yi ci confiance bi ñu ko jox. Mhm. pendant deux mandats. Euh, élire ko à 65 pour cent réélire ko à 58 pour cent un nom ki nga xam ne nii amul lu mu soucié lu dul Sénégal intérêt Sénégal ak intérêt sénégalais yi un homme qui a travaillé pour les Sénégalais qui a retrouvé qui a pris un pays en ordre qui a transformé un pays et ki lègue euh, qui lègue un pays boo xam ne nii bi muy bàyyi mu ngi ci fondamentaux yoo xam ne nii bu ko poursuivre incha allahu rabbi dana mën a accélérer sa marche vers euh, l'émergence donc hier c'est un grand homme d'État un grand homme d'État il faut moi je pense que noonu l'a pas encore assez salué mais il faut saluer la grandeur de Macky Sall. Mhm. il faut saluer la sagesse de Macky Sall. Sall est un homme d'État est un homme d'État exceptionnel parce que li ko war def na ko sénégalais yi wóolu nañ ko wóolu nañ ko ñaari yoon wàccoo na ak sénégalais yi te yàgg na wax ni mhm, yàgg na wax ni mhm. dana jël réew mi ci jàmm ci jàmm la ko jël mhm. yàgg na wax ni dana bàyyi réew mi si jàmm te waxtaan na ak candidat yëpp ñi nga xam ne nii nag ñoo am ambition succédé ko ñoom ñoo war a nekk élevé wu dana jafe dana jafe mais élevé wu à la dimension de l'homme bi ñu am ambition euh, pour succéder